amna naa bu rëy ñoo fi ci Bambilor seet ci askan wi ñew ci base bi c'est sama frère monsieur le maire honorable député Ndiagne Diop Je koy félicité di ko encourager bu baax ci taxawayam ci askan bi ak liggéeyam di nuyu baax monsieur mon frère monsieur le ministre d'État Ismaël Madior Fall di nuyu les honorables députés monsieur directeur général de Petrosen les honorables députés les hauts conseillers les collectivités territoriales les conseils économiques sociaux environnementaux,

renforcer l'ensemble des capacité pour ñu ay femmes entrepreneurs. parce que quand son excellence présente, président Macky Sall dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 Il faut que ñi au cœur de son programme de développement wax déjà jàppale jigéen ñi nañ leen renforcer nañ leen dimbale parce que ku dimbale jigéen dimbale askan yoon yoon boobu que le honorable député mon frère Ndiagne Diop Diar fas déjà jàppale jigéen commune am di leen dimbale moo tax mu tabax tabaxee marché bi nga xam ne koo gis xam ne marché bu am solo la un bel un vraiment un joyau de la commune nga xam ne jigéen ñi ngi seen bopp ci biir nekk fu set nekk fu féex di mën a jaay am lu yóbbu seen askan.